mu nekk un choix qui sera gagnant pour le Sénégal. kontaan ngeen ci mom ci doxalin gi liggéey gi. non non mënuñu bañ a kontaan ci Aliou Cissé parce que Aliou Cissé c'est tout man mi man dama féké buñ ko doon jël lorsque on a quitté Guinée équatoriale n'est-ce pas. quand de fa match yi premier match bu mu def. c'était contre Afrique du Sud j'étais dans la délégation. fédéral yi man ak Augustin rek ñoo demone d'ailleurs contre Afrique du Sud on fait on avait fait 1-1 là-bas. Mhm et on revenait benn débâcle bu garaaw lañ ñëwaatoon il était avec ndem si yàlla alors donc euh, ba ñëw fii jóge foofu ba ñëw fii xam nga période qu'on est en train de vivre on l'a vécu avant ñuy gagner coupe d'Afrique tout à fait mm-hmm. quand il regarde dans le rétroviseur on a vécu cette période là ben lu tax ñu dépassé fii ñaar ba ñett la benn bi ndogal yàlla ñaareel bi tamit autocritique bu nga xam ne ñun dañ koy def

Difficulté ne veut pas dire que ngeen di une réunion de rédaction qui naan je veux ça qui naan non c'est pas ça. Mm-hmm. Mm-hmm. difficulté yi nga xam ne ne war na mën a tax ne. blocage. Mm-hmm. fekkee wu ma n'est-ce pas bon maintenant, est-ce que il est têtu il ne l'est pas bon man il n'est pas envers moi. n'est-ce pas Si vous êtes dee têtu nag moyen gars yi naan la système bi baaxul nga defar ko tey defar ko suba bon loolu qualificatif la rek bu nga xëy na man en ma ko collé loolu. mais système bi moo ñu gagné kon Côte d'Ivoire fan yi yëpp système bi moo ñuy bëgg a rey de. d'accord mais dans le passé le système nous a fait gagner aussi trois défenseurs man d'abord man duma technicien. <laughs> man je suis administratif. tout à fait. n'est-ce pas. mais système boobu mais xam nga football bi. système bi. en ce moment nous a fait gagner aussi contre des matchs. le système nous a fait gagner hein, contre des matchs. est-ce que on doit le changer on ne doit pas le changer. je dis encore une fois. <laughs> yaakaaruma ne que Augustin Senghor wala man mi le comité je Eh, naan boule yow bul joueti lii le 2 4 4 wala de 4 loolu dafay poser un problème d'accord parce que c'est le technicien c'est les joueurs qui sont mis à la disposition c'est l'adversaire c'est am na yu bëri am na paramètres yu bëri yu nga xam ne indi ban joueur ngay classé ban système ngay indi ci sama gis-gis mais lu si am dool rek solo rek mooy que aujourd'hui euh, nous sommes dans une situation le coach les joueurs tout le monde doit travailler pour que nous gagnions cette situation